hey guys so boy Marwan I'm back again with another video please subscribe yi na like si comment si ba pare ngeen di share tey in dañ lena, si Gam Music lo ham brief la entertainment la lu gaaw la you know what I'm saying please subscribe si na gën a na dem si kawa. kawa kawa kawa. you know what I'm talking about Po, new dem si mairie ñu weer ñu national anthem then you know what? let's go bonjour les célibataires dama leen di woon Mr Zoum di rap boo xamante ne bu freestyle bi génnee si leen ko daxa school bu nekkoon léegi ñu dem xool ndax lii jar naa daa wala jaru ko. wata sa jaaf mooy woon freestyle bi lu si des nag. bàyyi ko sen loxo ci comment section bi lay jaaree di len wona benen rapper di Skelta bo xamantene gina na def freestyle gaaru wala benen rapper bo xamantene dafa def drill nako yow comedian nga am lo space ci gam drill bi na dem xool vraiment dee nga ne ah. way comme comedian wa way you talking you got no space in this broadcast kingdom su yon neku ci ba léegi def len sen liguey ci comment section Skype ak Mike jeda sen friendship bi tas ba tax na ku nekk nga tekku sa morom ci benen interview Skype génn na fa ne Mike jeda daf ko jox xaliss pour mu déposit ko ci nar bi mu ne meles ak bahabi ndax du yeah soo baxa bi ñaata la woon. thousand la sekk. léegi after boo naawee ak grand bi lu xew. mu nekk di call booy. cappu leen skyper cappu leen booy skyper skyper nii skyper. skyper xam nga ne dëkk bi dafa naxari te mais bi last one kii am la la jox jota nga ne mm-hmm. ne man loolu crédit laa ko dee mun naa chicken change la si man. Mm-hmm. ah chicken change boobu nga dawaa de. <laughs> safur laa. bi léegi dama gis ne ku nekk lu la neex ngay wéy. nañ déglu li baax my music and my image go respect ko ye babe bomi bu ma kenn ne marwan ñoo degando respect ko ye babe bomi foofu lay ne sara si new song bu génne nii bi nga xamante si 14 of february valentine day la ko booy génnal jagleel ko kan mooy may njaay ne ko may njaay katal ndaw si walay dem eh, katal ndaw si walay dem eh, mbay njaay katal ndaw si walay dem katal ndaw si walay dem li si k plus bem sotti rek la mun am gambia nak des na tuuti kenn du fi woyaat ndax loo génne ñu ne leen ko saaja soo génne soo ñu ne leen ko saaja léerëcc ñu ne leen ko saaja flow ñu ne leen ko saaja a gëm ne lu fi xew yëpp loxo iblis mu ngi si lil kaa yow pleel ma sax moo tax naa leen wiccax di leen wiccax naa leen wiccax di leen wiccax attaqué sa bos taakay loo am pour wax si am na de waaye dara Tisha moom mu ngi jooy ba léegi noppeegul. lu xew nii yëpp suñu yoon nekku si te doon rek ñu ngi maanu nag toog suñu place di naan suñu juus di benn sotti. jamono yii laa gën a réew. mbay demal toog. <laughs>